bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wattamkin yéen sama bokki taalibe yi maa ngi leen di jotal ay nuyoo yu gën a kawe ak i cant ak ngërëm di leen jotal nuyoo kilifa ya Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na fi yàlla yàggal bu baax tam wér nuyoo sëñ Sidi Mbacke moom it yal na ko fi yàlla yàggal bu baax te wér nuyoo sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom yal fi yàlla yàggal tam wér ak kilifa ya fa nekk di leen sant bu baax ci taxawaay bi. ak ci Pastef bi ak ci bëgg gi ngeen bëgg sëriñ bi te yemale wu leen kook dara ba tax li waxtu di jafe-jafe jafe ci nit te am solo lool ci nit lépp ngeen di ko bàyyi di ñëw fii di dundal yoon wi di taxaw njabootu sëriñ bi ñu ngi leen ci sant bu baax. waaye nag di leen jottalit nu yóbbu sama rakk ji xaadimu noor Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne mën naa ne moom sëñ Souhaïbou ndax lépp kër sëñ Souhaïbou la ko defee wala yaroo wala jàng yaakaar naa moom la gën a xam ci bàyyam waaw <laughs> nag maa ngi leen di jotal ay nuyoom te di ko sant bu baax ah, ndax xamul ci bàyyam lu bari waaye nag yàlla dimbali na ko ba warkàlla mi ngi tegu ci yoon wi te loolu rek ci am solo bu ci fekkoon lu yàgg a yàgg te nekkoo fa nga war a nekk ah, amul solo waaye nag yar ba ak eh, xam-xam ba ak jàngal ga feeñ na ci bu baax ak yéen a jëm amoon ci yéen ba tuddi la kim la tudde kon nag maa ngi koy bu baax di bég lool ci daje giñ fi daje tabarkàlla di sant bu baax di leen jotali nuyoo soxna se di mbokkam soxna Bousso Mbacke bu Cheikh Abdoulaye tabarkàlla ak sunu doom ji ma fekk doomi sëñ Modou Bousso Dieng ñu ngi leen koy bu baax ah, te am mbégte nag bu baax a baax a leen fekke gëj nañ fi waaye nañ leen bàyyi woon rek nañ leen fekkewaat ah, lu nit di def nag ay at te soppikuwul kon lu dëggule ci moom te réew mi dafa bari jafe-jafe waaye nag ñu ngi ñaan yàlla ci barke sëñ bi jafe-jafe bu am yal na ko yàlla dindi te yokk leen yokk gu wér a wér sàmm leen bu baax te téyel leen seenu taalibe ak seenu njulli téyel leen seenu taalibi ak seenu njulit mu téye taalibi gi rek njullit gi dëgër ndax kenn mënta doon ab taalibi dëgg te doonoo ab jullit nga doon jullit dëgg-dëgg ñambaas ca la mooy tax nga doonu taalibi kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax ah di nuyu sama mbokk mi ak si Moustapha nga xam ne benn laaj sëñ Abibu ak sëriñ bi di ñu lenn mi di kenn ci njabootu sëñ Abibu te di léppam daal sëñ Abibu moo ko yar moo ko defal lépp ñu koy nuyu bu baax di rafetlu taxawaayam fi ndax moo loolit it mënta ñàkk kuy jiite nit ñi ci diine di leen xamal yenn yi mënta ñàkk bi yëpp ràgg biir yi ak ràgg biti yi barke sëñ Tuubaa jërë ngeen sant nañ bu baax a baax jërë xam naa yoon dafa xat rek moo tax ñu d'accord ne bis bi xëy na du ñàkk ngeen di fi daje ñu aw fi rek nuyu leen daal di yàlla jërëjëf jërë ngeen jëf nañ bu baax a baax nañ bu baax barkalla waaw waaw waaw loolu kay loolu kay lii tegtal la ci tegtal la ci weesu na ko dëgg la xam nañ ko jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf amiin amiin waaw alhamdulilah waaw waaw amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah